ah dossier bi daal noonu leen koo jëlee ban koo yëgee danoo ñëw bin ñëwee def nañ suñuy pexe ndax jot ci moom pour mën koo robi ñu wax ni comme dafa gaañu il ñu dem ñu seet ko ba xam lan moo ko gaañ ci noonu samedi ba talaata ci ngoon lan ko dog jot bin ñëwee ñu rob bin ñëwee nag jot nañ kayit bu wax ni nangam ji ah moom moo ko moom moo ko rey ay damm-damm yu bari ci doq gi ak ci kanam gi ah biñ jotee loolu nun suñ réaction mooy lii du daanu du jël bu bu bu bu moo ko def mais kii dañ ko ko dañ ko dóor dóor yooyee moo ko yóbbu ci boroomam loolu la tax ñu ni nun dañ ko rey kan moo ko rey enquete bi ak seede ya danañ euh, biral loolu ñoom danañ biral loolu su su foofu nun biñ jógee xam ne xel nii ah dañ ko rey nun danoo dem porter plainte ci gendarmerie ak ci procureur procureur laaj dossier bi nekk ci gendarmerie boole kook bi ko jox ak rapport euh, ak rapport bi nga xam ne bi moo nekkoon ci commissariat bu Parcelles Assainies alors mu boole ko jox ko juge du premier cabinet ba pare ni ñëw ubbil naa leen samay bunt lépp lu ngeen xam wax leen ma ma boole na rek juge bi ah seede bu ngeen am wax leen ma ma boole ko ak juge bi moom dina def liggéeyam mu doll ca niinu wax naa juge bi ni ko képp ku ci laal muy ci jege bi wala nga sori ca laal ci wax naa ko ni ko mu mu arrêté ko wax naa ko ni ko mu arrêté ko lii procureur moo ñu ko wax ah ban fa jóge aussi la famille ñoom ñi ñëpp toog nañ a ah, waxtaan nañ dem nañ wuti suñuy avocat am na nit ñoo xam ne ñëw nañ ni ñoom ñoo gis ñoo fekke ñoom ñoo gis ñoo fekke dina ñëw ñu toog ba ay jamono la ca bés mooy am na ci même ñi ni ñoo gis ñoo fekke ñoo xam ñi sax dem nañ fa di leen xoxotal ñu di leen ni leen amul tiit amul ragal amul tiit amul ragal duñ leen def dara képp xam ne kii a ah, am nga lenn loo xam ne lii dana tax dëgg gi feeñ ca dëgg gi dana feeñ yàlla dana feeñal dëgg gi kenn amu ci dara yàlla dana feeñal dëgg ak foo mën di ak foo mën di làqatu yàlla dana feeñal dëgg gi dëgg yàllaa ko moom dëgg yàllaa ko moom li ñu mën a wax foofu daal mooy ñun foofu lañ toll ah wut na nag porte nañ plainte wut nañ sunuy avocat dossier yi yore jox nañ leen ko ñoom suñu témoin suñuy dem danañ ànd ak suñuy avocat dem la ñuy wax sunu avocat danañ ko fekke am nañ gëm-gëm nag ni ah baatu dëgg dina jib am nañ yaakaar ca ñay atte ca wóolu nañ leen mais nun daal fu ñu tollu liñ munta nangu mooy dafa accidenté parce que même ñiy génn di wax naan dafa accidenté moto baa ngi nii moto bu accidenté wala bu taañaañal dem ca àll ba da nga xoosu wala moom moom néew bi ci boppam yaram mam dana fenn ci yaram yaramam xoosuwul du loxo du tànk du dara loo xam ni wala kanam dara loo xam ne fii daal ak fii dara ji jaar nii di tuur fii. kan moto ah loolu man fekkewu ma ko parce que man boobu nekkuma fi man maa nga Dakar parce que man une heure du matin laa ko yëg maram moo woo ah, rakku Amar moo ko woo wax ko man une du matin laa yëg moto bu taañaañal dana daanu. yéen su ngeen paree xool leen ko ndax moto bi dafa taañaañal waaw wala déet ci moto su taañaañalee mook borom ñooy ànd dem comme su fekkente ni bii su fekkente ni bii dafa taañaañal ànd ak borom donc fee dina géew ca su feddee géew nan lay mën a dee foofu indiwaat boppam ba ci digg tali bu tëdd foofu dafa am loo xam ne yéenul maanaa looloo tax ma ni ku naan dafa moto bi dafa taañaañal ak nangam-nangam su fekkente ni li wax wóor na ko na dem ci juge bi euh, ci àttekat bi moom si jëm boppam dana ko déglu dana jël la muy wax am na ay témoins na ñu ay dix témoins à décharge témoins yoo xam ne dañ leen a ñoq ci euh, ay témoins lañ ñooñu ay témoins lañ ñeen jàpp ci guddi googu ñooñu ay témoins lañ wala boog ñoom <coughs> alors euh, dañuy sab rek parce que dañ leen a sabloo il faut il faut il faut que nit ñi nañu dal nit ñi nañu teey nit ñi nañ gëm yàlla nit ñi nañ nekk ci dëgg nañ nekk ci dëgg lu mu metti metti dëgg mooy mujj koo ko làq fii doo ko làq fële

alors moo am may à partir ak yenn élément yoo xam ni ñoom ñoo indi échauffourée ya fa nekk moom yoonam nekku ci dafa romboon di dem cala la ndogal ga amee kon boog ak muy muy moom ak ñeneen man fu ma jaar dinaa woote li may wootee nag euh, euh, ministre de l'intérieur du dara lu dul saako boo gis am na am na pomme bu nëb pombiteer yu nëb yooyu il faut mu dindi ko foofu laa koy woo ca pour mu dindi ko moom si jëmmi boppam na xoolaat njàngale ma na xoolaat formation ba parce que nit ku nekk la nga tàcc boppam ba nga koy former dana ko war a mën a jëfee à quatre-vingt pour cent su fekkente ni mu ngi ci terrain bi. kon euh, waxuma lool de waxuma lool nee fekke waa defal nang déet du question du question ma ragal wax parce que man lu ma ragal lu ma ragal wax toog fee di jooy. keroog da nga yor autopsie à l'hôpital demoon ngay bëgg-bëgg wax après nga noppi ne nañu bàyyi ba ñu denc bi ñëwee fii yaakaaroon dañ wax yor nga autopsie mais nangu waxu woon alors que ñun on avait li ñuy wax si biir autopsie moom moom nga firndeel est ce que loolu également du compliquer bataille d'opinion bi ñeneen ñi ngay xaw a euh, euh, tuumaal entre wax ci sénégalais yëpp que ne la ba ñu bari gëm loolu alors que yéen peut être entre guillemets yéen a ànd ak dëgg bi mu wax

ñaareel ba mbir su fekkee dafa am foo ko teg dafa am ñoo ko dénk dafa am yoo xam ne yii du yow yaa koy génne mais ñoom ñoo koy génne d'abord nun dañu am ay avocat avocat yi nu am lanu xam ak fanu nu féetee ak lañuy càmbar ñoom lañ koy wax ñoom nag ñoom ñoo am pour génne ko ñoom ñoo am pour euh, weddi ko ñoom ñoo am pour seet naka lañ ko jëfandikoo pour dëgg mën a feeñ mais du càgganteeg lu ñu ragal du càgganteeg lu ñu ragal mais nag mbir dana toll foo xam ne fii alors doo ñëw xaañ mi ngi mel ni yow nga jóg àtte sa bopp nga jóg àtte sa bopp. Euh, dafa mel ni waa commissariat ñoom ñoo commandité li nga xam eh. ngeen waroon am li ngeen war a waaw mu mel ni dañ leen ko nangul loolu leen yaa ngi ko doon ah, kii bi ah, commandement bi commissaire Parcelles Assainies moom moo ko signé ah, alkaati bi ànd ak néew bi commissariat Parcelles Assainies la bokk ba ñu demee nun noo fay droit yi moom policier bi ànd ak yeneen policiers yi ah police scientifique ak médecin beeg major bi ñu dugg ci biir nun biñ bëggee dugg ñun ni ñu déet man leen lu tax parce que nun il faut ñu xool ñu ni ma yow doo agent assermenté mais tam man leen policier bii du euh, même su dee agent assermenté moom dañ ko yónni dafa war a indi affaire bi tout simplement mais war fa nekk day taxaw nun en tant que père fay droit d'autopsie yi war na nun suñu jëm bopp war na ñoo teew pour xool nun teewuñu pour en tant que spécialiste mais dañu teew rek pour xool nan lay demee ñun nun nu déedéet kon wuti leen benn médecin ca même su ngeen wutee médecin sax il faut nun ñu nangu médecin bi dugg ah pour kii mais kii moom c'est un agent assermenté day toog ñu itam nu génn ñu dem toog ñu dem toog di xaar bañ paret moom lañ ko jox moom ba mu ñëwee supérieur am bi ko ko laaj moom la ko jox moom moo ñu signal ah, genre de mort ba defe naa ni moom moo ñu ko signal ke ñu dem ci procureur procureur signé defe naa loolu ci sa kanam la yow ba muy signé ak bi procureur di signé yëpp alors ci lañ jógee nag doog a dem hopital euh, alors jël corps bi pour ñëw. ci li ci tey sama xel mooy wax naa ko ci njëlbeen dama ni même su fekkente ni bi ay suspicion ñi ngi posé ñi ngi nekk ci maanaam euh, ñi ngi am xel ñaar ci benn mbir ña nga xam ne bi jege nañ mbir ma waruñu doxal la nga xam ne bi moom moo war a génn waa non autopsie bi dégguloo baax li melo mais comme auto homicide am na autopsie c'est obligatoire bon autopsie boobu ban demee nee naa la nii moom moom moom lañ kii mais nun bi ñu jotee résultat autopsie bi alors dafa corroborer li nga xam ne bii moom moo nekkoon ci sunu xel mooy lan mooy niñ ko waxee ni dafa am ay damm-damm yu bari ci kii bi ci euh, doq gi ak ci baat bi donc loolu lu ñu dóor la autopsie bi waxul ni dañu dóor mais blessure yi rek la la wax ak deret ji tuuru nu itam ñu ni kon kii dañ ko dóor suñ ko dóoree dóor yi moom moo ko rey ñu ni nag kon kii du accident parce que moto bi fa mu tëdd la moto bi nekk ak saaku xorom bi foofee mu tëdd fa la moto ba nekk ak saaku xorom bi kon boog suñu bëggee xamloo ni suñu bëggee gëmloo ni ah, accident la alors dañ ñoo bëgg a nax mëpp mëppal ko mu jàll ndaxte temps yee passé am na kuñ dàq ba mu daanu dee France daal di xëddeen ah ku se eh, ku ndobin rey sa maam soo seenee lu ñuul dem. keroog waaw mais boobu aw. waaw non xam nga soo gisee ma wax loolu d'abord soo suivre processus bi keroog da ngeen ma laaj résultat kii autopsie yi ma leen du ma ko joxe mais kontaan nañ ci du dëgg. mais buñ fa jógee nun dañuy dem seet ko dañuy dem laaj xel xel boobee ñu laaj moom moo waral wax ci tey combat bi moom kenn du ko nëpp nëppal duñ ko bàyyi fii organisme yi nga xam ne yëpp dañuy yëngatu ci droit de l'homme daañ leen daañ leen saisir organisation judiciaire yi nga xam ne bii dañuy secourir ay nit daañ leen saisir ñoom ñëpp daañ leen saisir au plan national comme international nous en avons les, la possibilité nous en avons la possibilité. ndax loolu day wane ne combat euh, perdu du loolu. loolu soo ko gisee du question ñàkk wóolu mais bataille d'opinion la. yéen yéen wax nañ ko fii léegi ñoom ñi ngi ñi ngi def seen bos nu itam dañuy def suñu bos ñoom ñi ngi def seen bataille d'opinion nu itam def suñu bataille d'opinion lool loolu la a am am naa yaakaar ni non gis nañ leen am naa yaakaar ni ñoom seen jëm bopp soo moytul tey sax da ci dégg waaw soo moytul tey da nga ci dégg bu neexee yàlla. menaces yooyu nga doon wax ne ñoom comme ñaari cas lañ ci wax. dama ni d'abord ak ñi ngeen joxañ loxo waa police parcelle nangoo leen tudd ñu wax ne yéen am ngeen ay seede yu wóor yu fekk mbir mais am na ñu leen di menace nangu woo wax ne waa police ñoo leen menace ndax menaces yooyu yow jot nga si ak pression. ndax man jot jot na man jotuma benn menace jot dama ni seede yooyu ñañ menacé ñoo ñëw xamal ne ñun am na ñu ñëw suma kër. alors menacé ñu wax ñu ne tey leen seen gémmiñ seen yoon nekku ci wala ñu rey leen wala ñu tagal leen paaka kon boog ñu ne leen yéen comme noonu la mbir mi demee dem leen ngeen porté ji plainte ñoom ñoo ñee dem nañ porté ji plainte ah, da moom koy xam naa ni <laughs> dossier bi moom alors ce